tabaski Souda daa président de la république day jël ay dogal yu reuy bokk na ci matuwaay ak dogal yi mu jël moy nañu yombalal ñi nga xamné ne ñoo jëndi xar ci yoon yi ñuy jaar ci frontières yi ci point de vente yi ñu yombalal leen lepp pour ñu nekk dans des conditions optimales pour que consommateurs yi suñu ñëwé ci point de vente yi ñu man fa fekk ay xar en quantité suffisante

activité sociale la suñu waxee activité sociale nag dañooy ñaan ñay jaay naam bu ñu bazarde la ñuy jaay waaye nañu bàyyi xel tamit ñi ñu koy jaay am na ci ñu lott lool te nag du seen ak yaafuus mooy ñun ay ndawu président Macky Sall lañu lépp lu ñu def ba nit ñi ñee ko sant ci gërëm ci damay ne gone walla liir ak kum ci mën di doon su feccee ba fecc bi rafet rek du moom de ndey ji jàpp ci mbagg yi moo tax kon ñu ni lu ñu def lu ne rek suñ ci sant wala di ci ñaanal nañu ñaanal ba ndey ji ndey ji mbill mooy président de la république Macky Sall Macky Sall nag mën naa ne kontaan na lool ci sàmmkat yi suñu ne sàmm nag ak xar rek la ci nit ñi gën di bàyyi xel waaye borom ganaar bi ci la bokk borom mbaam xuux bi ci la bokk borom leneen ci la bokk te ñooñu ñëpp def ñu jox ndigal mu ne nañu def suñu kéemtalaay kattan ci li mu def ci loo xam ne wàllu tabaski bi la yombalal consommateur sénégal yi mën naa ci wax six milliards yoo xam ne jël na ko ren parce que kenn ku ne xam na at bi atu ren bi Covid 19 bi dafa lottal doomu aadama yi lool affaire yi xaw métti mu ne jël na luy tolloog 69 milliards def ko ci wàllu denrée alimentaire bépp commune boo dem ci Sénégal tey. ma ne su ñëpp jotutit ñu bari jot nañ mu jël luy tolloog dix-huit milliards mu ne Sénégal am na ñoo xam ne ay jàmbaari fakk tëgg lañu waaye fan yi metti na kon na fexe ñooñu noonu nu mu leen jàppale ci fay facture nu mu leen jàppale ci fay facture ndox ci fay facture courant. moo tax mu jël luy tolloog trois milliards de francs mu jox ñu ko mu ne nañu accompagner éleveurs yi bi mu paree loolu nee ñu saag bi ngeen di jëndee à dakaar à 8500 francs Manglin di jox ndigal ngeen à 2200 francs lu parce que jamono ni mel il faut ñu jappalé. damay wax nak ci bi dëkk bu sell la taala man sama ñaan bi mu ndigal parce que nak xamna ni ndigalu señ bi jëm ci yi ndigal luy tolloog soixante à soixante quinze milliards ñu koy lekk ci xar loolu noonu mën naa des lépp ci biir réew mi dafiy créer emploi pour ndaw yi dafiy jàppale jigéen kenn ku ne ndax sa wërsë pour lan moom ci boppam mu mën a joxe ndigal mu ne tabaski déwén suñu yàlla mayee fekke dama leen di ñaan yéen taalib yi kenn ku ne ci yéen na yeew xaram ci bunt këram yaral ko boppam damay ne boobaa kenn ku ne defee loolu sàmmkat yi indi li nga xam ne moo nekk ci àll bi su yàggee damay ragal ne xar dina am Sénégal te dootuñ ko jéggaani parce que ci xayma daaw man naa ne information yi ma jot ci inspecteur à J moins 11 tabaski mu des fukk ak benn fan ñu ngi tolloon ci 44000 têtes tey ci tey ci liñ ma wax ñu ngi toll ci mille têtes soo defee différence bi presque c'est le double la ñu am à la même période kon loolu su tendance yi continuer mu mel noonu ba mu fin am nañu ñort ne ak yaqin ko ne xar dina am pour ñëpp yal nako yalla def mu nekk ñu muurloo. ñaarel bab dolli aussi ñu ne suñu nit ñi télé jënd à une semaine de l'événement de nan a xam marché bi kat li ñu gis ni jëm na kër kon amul problème ñu sant ci yalla yalla na yalla la neex wala ñu gis marché bi xaw a ñu ne li kat ah su répé xar dina manki ñu mëna a aruna galoba woo Aliou Dembourou woo beneen opérateur bu mag ña leen hee dem leen Mauritanie dem leen Mali dem leen fii dem leen fii ngeen dolli xar pour compléter zone bii di parce que suñ ko bàyyee ba deux jours des ci tabaski ñu ñëw ci marché bi xar jeex yàlla tere boobaay soo waxee opérateur lu leer la lay wax kenn du jël risque boobu man nag dama bëgg ngeen xam ne combat bi combat ñëpp la. ministre na sa dal. yàlla dina la jàppale xar yi dinañu doy xar yi dinañu des ku bëgg am xar di nga am xar ci njëg bi nga tollool waaye nag man lu may nanguwul mooy boo yoree soixante quinze mille wala cinquante mille nga ñëw ci daral bi kool xaru trois cent mille nga wëndeelu benn ñibbi nga ne xar yi dañoo seer déedéet ku ne na gor fi mu tolloo boo yore cent mille am nga xar boo yoree soixante quinze mille am nga xar boo yoree soixante cinquante mille am nga kar monsieur ministre la ngay def ci réew mi yëg nañ ko xam nañ ko dañu bëgg nag président de la république gën laa jàppale monsieur le ministre président de la république na la gën a jàppale ndax gis nañ li def ci euh, covid 19 yi ñu ngi joxe ci sous-région ñi nekke ci bitim réew ay douze milliards waaye buñ la joxee 3 milliards def nga ci loo xam ne ëpp na 6 milliards